Oustaz laa bëgg a yóbbu suba soirée Youssou Ndour bi la set parce que soirée Youssou Ndour bi set bu suba du am fenn kooku man wóor na ma li ma xam mooy dama bëgg mu la mu mu non non non premier part de doy ba yeneen gars kii non mu sol costume ñëw toog VIP jàkkaarloo Youssou Ndour di ko seetaan yow di nga ko def wala doo ko def defuma defuma defuma defuma defuma defuma dix ah wuy ma kaay ma la. wuy ma d'accord nga ba wala ba. boo demoon ñu d'accord.